seen euh, émission sama santé sama santé tay nak ñu ñëw fi ci hôpital Fan, ñu sét ci ki nga xamanteni ni di docteur Cissé du neurologue ñu wara waxtané li di AVC docteur nuyu naa la. maa ngi lay fay di nuyu ñëpp ñi sétane émission bi. docteur gëna biñu ñu la nuyoo ba paré dañu bëgg rek nga wax ñu lan moy AVC. AVC feebar la buy dal yuur bokk na ci feebar yi dal yuur. Mm-hmm. AVC dañoo boole ñetti lettre A ak V. ak seey mooy accident vasculaire cérébral am na ñaari façon AVC. Mhm. ana boo xamante ni ci biir day fatt ñu tuddee ko AVC ischémique ana boo xam ne ci biir day fàcc mhm. lan mooy fatt wala bi fàcc mooy sidit yi yóbbu deret ji ci biir yuur bi mhm. bu ñu fattee day joxe AVC bi ñaan ischémique bu fekkee dañoo fàcc day joxe AVC bi ñaan hémorragie loolu daal mooy AVC feebar la nag boo xamante ni li koy gën a màndargaal mooy gaaw bi muy gaaw a dal nit. Mm-hmm. exemple bi ma lay jox mooy nit mën nañ ko jox kaasu attaaya mu commencé naan. Mm-hmm. bi muy commencé naan amul AVC ci diggante bi muy naan ñett wala ñeenti guux yi mu siy am. Mm-hmm. di ko teg AVC mën na ko dal. te bu ko dalee beneen màndargaal bi ñu koy xamee mooy si yëpp la ñuy ñëwandoo nekkul ni si yi dañuy ñëw ndànk-ndànk ci diggante muy commencé attaaya ji ak mu koy teg naan bi si yëpp dañuy ñëw. loolu ku mu daal rek. yan mooy signes yooyu di ñëw. seen yiñ ci ñu ci gën a xàmmee mooy loxo bu bañ. Mhm. d'ailleurs sax noonu lañ koy xàmmee wala mhm. tànk bu bañ. kon boo doon naan ataaya jékki-jékki kaas bi daanu. Mhm. kon loxo bi bañ na tànk bi bañ na làmmiñ bi su koy jàpp jàpp na ko bët bi su koy jàpp jàpp na ko. le plus souvent yooyu signe mu ne nag dugal la coma directement mooy ñëw rek dal la rek nga dugg dans le coma. mais signes yi ci gën a fréquent mooy. mu jàpp bët tànk ak loxo. wala lami mais buy japp mhm. waaw buy japp benn côté lay japp mhm. loolu lañ wax paralysie faciale soit loolu la lay jox moy gémmiñ gi wengi benn côté mhm. wala loxo be tank bi baña do wala loxo bi rek bañ wala tank bi rek bañ wala sa benn beut gisatul wala siñ yooyu yep dajalo ci yow mais buy dajalo ci yow day do yep du bi moy ñew di xaar benen yep ñewando lo tax ñu naan accident parce que accident boo seloo accident tali. day gaaw day ñëw rek oto bi dal sa kaw lii ñëw ñëw na. Mm-hmm. noonu nag moo tax ñu dee accident parce que li lay li lay dal mm-hmm. peut-être duñ ko gis nii ci ay bët mais day ñëw rek dal la rek lépp ñëw. ñaari AVC yooyu nga tudd ban moo ci gën a euh, fréquent ak ban moo ci gën a metti. ban moo ci naan sax ñaar yëpp metti na mais ban moo ëpp. bi ci gën a fréquent mooy bisili di fatt. Mm-hmm. bisili di fatt moo gën a fréquent. Les méthodes de dafa am façon mhm. parce que y pronostic les pronostic fonctionnel AVC est-ce que vous avez un est-ce que di nga un est-ce que di nga un a pronostic vital mhm. mhm. est-ce que vous avez des wala Vous avez AVC hémorragique pronostic vital ça veut dire que AVC ischémique noonu laa ko mën mais nit euh, jóge na ci AVC cër yëpp ñëwaat normal comme ku AVC mësul dal. waaw nit jóge na ci AVC cër yëpp ñëwaat. Mhm. loolu ñett mbir moo ko mën a def. Mhm. y a des éléments intrinsèques. Mhm. am ñoo xam te ne ben traitement mais seen cër yëpp ñëwaat. am na. amuñu benn traitement seen cër yëpp ñëwaat am na ñoo xamante il faut ñu def rééducation pour sen cër ñëwaat. am na troisième élément moy li ñu wax la thrombolyse wala thrombectomie. Mhm. ñaari élément yu bokk lu mëna utiliser lolu day traiter AVC. Mhm. ischémie bi. Mhm. pour que bu la dalé buñ la ko defalee pour que cër mëna mën a ñëwaat. voilà. légui dañu gis tamit que ni AVC dafa fréquent ci réew mi actuellement. surtout gis na temps yi liñ ci gëna néméku moy ay jeunes xalé AVC dafa am âge wala amul mag amul ndaw. li sax mëna AVC. Hmm? kuy doog a judd mën na AVC ñëpp AVC amul âge c'est vrai que muy commencé dal ci jeunes yi mais ba léegi ci mag ñi la ëpp certes amul age mais ci mag ñi la ëpp parce que AVC dafa am cause. lan mooy cause bi. voilà cause yi bu dee ci ku mag ki mag mu def AVC. cause yi ñuy yaakaar bokk la xale bu def AVC. Hmm. lu leen wute. lu leen wutele par exemple mag mu def AVC. souvent tension la tension bi yag ci mom dim traiter le plus souvent. Mm-hmm. wala ak nga jëm mak rek facteur de risque la. Mm-hmm. élément yoy boko bolé yenen obésité am nga peut-être diabète am nga ko mais élément yooyu benn bo ci am rek wala nga bolé ñaar wala ñett day agir ci xol bi di agir ci parce que néwa ñala problème la mm-hmm. buy parce que soit cholestérol ak un élément ñoo dem déposé wu ci sidit yi fàttu ko wala xol bi tension jàpp na ko ba tout normalement mu ay dysfonctionnement di bàyyi ay embol su ko bàyyee day dem fatt vaisseau yi du fatt rek vaisseau yi jëm ci cerveau day fatt yëpp mais pourquoi manifestation di gaaw fait un ci cerveau par rapport à yeneen mhm. cerveau amul réserve beneen organe boo jël da ngay am am réserve sucre réserve éléments yi nga soxla. Mhm. ba nga xam te ne bu fàttee. mën na ko remplacer mën na mën nga mën nga dund sans moom. Mhm. mais cerveau lu ñëw da koy lekk di xaar. Mhm. moom bu ñëw rek da koy consommer di xaaraat moom te moom en plus 20 pour cent li ngay lekk mu da koy jël. te da koy jël du ko denc day lekk lépp toog di xaaraat. moo tax il suffit que mu am défaillance rek. si ñi ñëw. d'accord léegi euh, comme. léegi nag loolu mooy pour mag ñi pour xale yi. ndaw ñi voilà nous du am souvent ay dépôt ci artères yi souvent duñ ko am. Mhm. souvent mën nañ ko am mais mhm. souvent duñ ko am. Mhm. dafa am lu tudd dissection mooy artère bi ci bon moi am benn déchirure ci biir deret ñëw dugg ci bloqué circulation bi walla beneen élément sang bi. élément yi nekk ci sang bi ñoom ñu war a yóbbu lekk par exemple soit un anémie bu sévère drépanocytose bu sévère parce que élément yoy ñom ñoy yóbbu oxygène ay facteurs favorisant le pour non yooyu ay causes lay mujjé nekk. Mm. parce que drépanocytose bu sévère dootul yóbbu deret ji bu bu doy ci cerveau bi. Mm-hmm. anémie bu sévère. Mm-hmm. dootul yóbbu deret ji bu doy ci cerveau bi donc mm-hmm. dootul yóbbu oxygène bu doy. donc AVC day mëna a ñëw donc su fekkee xale la. dissection la ñuy gën a xalaat. ak les anomalies au niveau du sang. ci deret ji bu dee mag la nag ci xol bi la ñuy xalaat wala ay cholestérol bu yàgg ci deret yi ba déposé wu ci plat ci sidit euh, mhm. fatouko. d'accord léegi lan moo comme par exemple lan après qui manifeste, si avons AVC lan la a premier secours yi lan la war a ambulance mhm. su fekkee ni dans la mesure du possible dans mhm. l'absolu yow parce que nous nga mën def premièrement am na AVC yi manifesté par crise am na AVC yi manifesté par comment Yo première mesure de secours yi malade kuy crise avez mu AVC vous AVC da randal liko djegi mhm. ku dans le coma ke mu nek AVC AVC bu euh, cravate koy bu wala soutien-gorge koy vous koy mhm. mesure générale la mais en plus de ça vous ambulance su fekkee mu no ambulance yobul hôpital. Mhm.

ñom ñoo nek ci ginnaaw bu dé mag la le plus souvent. Mm-hmm. parce que ñom ñoo dem azir ci xol bi. wala ñu azir ci sidit bi ba AVC mujjé ñew mm-hmm. légui yoy fan lay jóge ci alimentation. ñi mm-hmm. ñuy lek day gras. day salé day sucré. gras moy dem bay joxé cholestérol. salé moy dem bay joxé tension sucré moy dem bay joxé diabète. donc li ñuy le plus souvent non lay mel. wala des fois ñu bolé lu dañ ci bolé sucré salé gras je le en plus activité physique. bi ci war comme prévention. duñ ko parce que ci mesure prévention L'activité activité physique est un am solo. mais le plus souvent sénégalais yi du entraîne du faire def activité physique le plus souvent. est-ce que tu es réuni au Sénégal bi neurologue yi bon nañ euh, bon bëriwuñ. mais alhamdulilah ñi ngi chaque année. est-ce que les moyens aussi sont là. les moyens de traitement normalement on devait voir nañu mën egg fo xamanteni maintenir. région yu nek wala région bu nek mhm. da nga wara am sa neurologue. Mhm. wala say neurologue. Mhm. sa scanner. ak tous les tous les autres éléments. Dakar amna ay neurologue touti amna quelques régions yu am. mais yépp amagul. ñëpp amuñu scanner te AVC pour nga diagnostiquer ko pour nga ni li AVC bi ischémie bi la wala hémorragie bi la. munoo xool malade bi ba xam ko normalement ça veut dire que pour être objectif mënoo xool malade bi rek ne la. foog scanner scanner mënut a ñàkk te région mm-hmm. donc neurologie, doyou je pense que doyou donc appel bi lancé Moi, na neurologie, yi gën matériel de traitement bi tamit ah, doy. matériel de traitement bi biir Dakar parce que thrombectomie ça va être un peu plus difficile mais am mm-hmm. mais thrombolyse ba léegi

place matériel matériel mënta nekk place su nit il faut que nga am nit yi am matériel bi pour mën def liguey bi ni mu waree. kooku mu mënta ñak c'est une condition. à respecter d'accord euh, docteur ñi ngi wax tamit xam nga Sénégal mom ku nekk ñëpp ay spécialiste lañ daanaka parce que da ngay dégg ku naan la AVC bu la dalé da ngay bu dalé nit ki nekk sa wette da ngay jël ben seringue wala nga jël ben aigu mhm. nga piquer loxo bi naaj bu naaj ci est-ce que lolu deug la ma ngi dégg sax des fois sax malade ñëw ni ma euh, am na ñu ma waxoon jëlal fuddan je pense. Mm. ak yeneen sax ak yeneen voilà. mais yooyu sur le plan médical li ma mm-hmm. jàng. Mm-hmm. amu ci. benn nit. Mm-hmm. taxul AVC wér. jox ko ay sumbuf ci li ma jàng man. taxul AVC wér. d'accord kon donc li wax ji daal mooy ku xam ku am crise euh, d'AVC fu mu daaneel rek nañ yenu yóbbu hôpital en urgence. moo gën moo gën d'accord de façon médecin bu ko gisee. dina diagnostiqué voilà bu jaree téye ko. dina ko téye su jaree bu ñu ko ordonnance ni ko defal lii ak hmm. li ak lii dina ko def lu ci war daal dina ko def. dina en fonction de ce qui est disponible. d'accord docteur bu fekkee amoo beneen euh, loo ci war a yokk. li ma ci war a yokk mooy man euh, li ma gën a soxal. Mm-hmm. prévention. Mm-hmm. prévenir. prévention prévention. Mm-hmm. parce que AVC. wax naa la ko sànq ñun amaguñu lépp lu ñu war a am. pour traiter AVC. amaguñu ko euh, pour te donner un exemple. il y a pas amul kenn Sénégal. ku mën a def loo gaaw gaw gaw ku mën a def AVC parce que traitement yooyu am France. Mhm. am na États-Unis mhm. et parce que sax am na Cameroun. Mhm. mais amul kenn Sénégal. tout le monde. kenn ku mën a def AVC gaw gaw bu la tax nga mën a dem France bénéficier au traitement parce que ci ben benn délai la bu ñu bu ñu war a intervenir. te délai boobu pour nga egg France donc nga koy dépasser. ñëpp nag qui que ce soit. donc comme que amaguñu traitement bi et même si ko amone sax man ci prévention a insister. pourquoi mieux vaut prévenir. que guérir Faire mom bu traitement bi existé wu ñu lay à 100 pour cent bañ comme que loolu la une activité physique. pour tout le monde. ku ko mën dé ko def régulièrement mhm. manger moins gras moins salé moins sucré ku am yenn âge mhm. parce que AVC li le plus souvent cardiologue bi moo koy détecté. Mhm. donc nga am benn médecin de préférence un cardiologue. Mhm. ou un ou neurologue. mu defal la bilan bis bu ñu gisee ci yow lu ko mën a joxe traité ko ba doo fa egg. donc prévention man ci lay gën insister. l'autre élément nag si on peut un jour bénéficier euh, de la technologie ni nga xam te ni moom la pays yu bari am. parce que Cameroun sax ñu né am nañ ko légui dinañu gën a tax li ñi liggéey gëna yomb ci AVC parce que AVC dafa bari. ñun mënu ma jox ben estimation ci côté boobu mais par exemple dëkk bu mel France chaque 4 minutes am ben AVC. té fi bari na fi trop légui bari na fi trop je parle en connaissance de cause. chaque jour damay recevoir ay AVC té ñu bari accès wuñ fi ñu bari ñen traité ci région yi. Mm-hmm. ñu bari ñen traité ci périphérie bi.

ak euh, trop lan trop gras ñu xel ci suñu alimentation di def sport surtout di l'AVC AVC ka mu jot rek hôpital gën docteur chers internautes li lañ leen émission sama santé ñu li nga AVC di leen euh, wax ngeen xel ci conseil euh, docteur jox du neurologue ñu leen rendez-vous ci émission sama santé. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sn.